jërë ngeen jëf mbokki internet yi safoo di seetaan ak ci Actubuzz TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo tey nag dañuy waxtaan ak yéen si Mbayang Thiam di animatrice bi nga xamante ni mu ngi doon liggéeyee fële ca 2 moom nag ñu gis ne fan yii yëpp kenn gisatu ko woon ci toil bi li ko waral nag du lenn lu dul ne Mbayang Thiam dafa feebaroon ba ñàkk ci ay euh, bëtam li waral feebar boobu nag euh, doon na ko expliquer si benn vidéo moom euh, wax na ni dafa naan benn poison maanaam poison boo xamante ni mënoon na koo rey. mais euh, ñàkku ci euh, bakkanam waaye def see ñàkk ay bëtam bi ko loolu dalee itam muy expliquer ni euh, moom dem na hôpital waaye ba mu demee docteur ya nañ ko accueillir maanaam dañ ko xaw a ñàkkal kersa wala soofantal mën nañu wax loolu waaye docteur bi dani ko kenn mënu laa faj et kenn mënula la opérer parce que sa bëcc dafa commencé euh, di di coller beneen euh, ci noonu tamit beneen docteur mën na daal di koy wax ne ko mën nañ koo opérer waaye moom lam xamal docteur boobu rek mooy ni benn docteur daf ne ko kenn mënu koo opérer ci noonu ci la daal di euh, ñibbe fële ca këram daal di toog ngir jàpp ci yàlla moom Mbayang Thiam nag comme nee na jigéen la te dundu Dakar dafa cher ci noonu itam mënul di ñëw chaque jour ak location yeeg yu ni mel si la daal di delloo Tëngéej toog foofu noonu ci euh, njabootam alors abu mbir mi li ci gën a doy waax polémique bi nga xamante ni daal na ciy am mooy mbay mbayang ci am poisson bi mu ngi ko naanee fële ca 2STV ba mu doon liggéeyee liñ ciy laam-laamee nag mooy ni kaas euh, boobu nga xamante ni naan na ko tem amoon poison bi ki nga xamante ni mooy euh, Pape Alé Niang moom lañ euh, destiné woon kaas boobu noonu muy lu doy waar. muy lu doy waar comme léegi léegi muy nekkoon lu doy waar lu doy waar ci ki nga xamante ne mooy kaw moo tax gars koo ci gëj a dégg koo ci gëj a gis rek. Mm-hmm. amaana tamit dafa nekkoon ci ay tolof tolof wala yoo xamante ne tey mooy loolu waaw Fatou mooy ci li nga xamante ne mooy ci polémique bi nga xamante ne mooy nit ñaa koy wax xam nga Sénégal moom euh, baaxoo li nga xamante ne mooy point de vue am mais li ci mën a am ba mën a am daal moom moom mbayen am xam ne ni na ko mënoon na ci jële maanaam bakkan bu ñàkk ak et cetera mais am na ci feer boo xamante ne mooy ñàkki bët la ci jëlee ba li nga xamante ne mu faral mu dem ba li nga xamante dem dëkk fi nga xamante mooy tëngéej mm-hmm. ndax dem na ba amatul yenn moyens yoo xamante ne tey pour dëkk biir Dakar fii mm-hmm. ndax yenn kii day xaw a moom mais na ni kat na li nga xamante mooy bëtam mm-hmm. ci côté li sànq mooy li ma médecin yi taxaw bi nga xamante war nañ ko mën a taxaw malade yi moom xëy na amoon na problème boobu tuuti mais daf ko nit ku gëm yàlla quoi parce que boo déggee ni mu leerale li nga xamante ne mooy kàddu yi ak di mu leeral li nga xamante mooy jafe-jafe yi mu dund xam ne gëm-gëmu yàlla am na ci parce que neen na na ba amatul yaakaar ne que moom bëtam yi dina si jotaat li ñu ko njëkk a expliqué mooy bët yi dafa dem ba commencé di muuru est-ce que di nga mën a gisaat mais mu am gëm-gëm ne moom xëy na peut-être ñoom ñedd bu daggu dikk ba yàlla dugal li nga xamante ne tey daal denc moom mm. nekk loo xamante ne daal lu xaw a yéeme daal Abou ñu gis ne tamit euh, feebar bu ngi ko dalee ci bërëbu liggéeyukaayam alors euh, est-ce que tamit euh, fii wóorati na mën nañ ko waxee noonu su fekkee ni fi ngay liggéeyee foofu nga lekkee benn lekk ba nga xamante nii Euh, li la li la dal may euh, nga naan poson tamit euh, dina nekk lu day waax ci bërëbu liggéeyukaay yi. waaw ah, dëgg la bërëbu liggéeyukaay moom yaa ma gën a xam lu ne nga fa am lu lu ne nga fay gis lu ne nga fay dégg mais que nekk na lu doy waar lu doy lool lool lool lool. Mm-hmm. xam nga doomu aadama yi nag lu nekk ci am ku nekk ak li la jaral daal. Mm-hmm. xam nga mais place su liggéey yeeg xam nga bureau yeeg jërtu xëccoo. Mm-hmm. waaw ku ku mën rek def. waaw ku mën def ku mën tamit yàlla bu la wërsëgal fii di nga ci war a liggéey. di ci war a mën a daal affaire daal dafa doy waar lool lool lool moom nag ñu koy ñaanal moom Tata Mbaye ak moom yàlla ko yàlla defal jàmm. moom it wax na ni euh, ni mooy El Hadj Ndiaye di patron bi nga xam ne foofu la doon liggéeyee euh, xëy na dafa yëgul mbir mi ndaxte euh, dafa gisul taxawaayam wala sentirul soutien wam alors ba ci noonu sax moom Mbayang ki ko dimbali pour mu dem fële ci yi daal di def opération boobu dafa nekk benn maire est-ce que soutien boobu tamit gënuñu ko woon xaar ci ki nga xamante ni mooy El Hadj Ndiaye parce que Mbayang employé am la woon. waaw surtout loolu

série boobu di maîtresse d'un homme moom nag fan yi yëpp mu ngi animé la toile ci benn vidéo boo xamante ni euh, def na ko euh, vidéo bi muy nekk vidéo bu doy waar parce que daf see nekk euh, di génne yenn kàddu yu xaw a déplacé wu alors ñi nga xamante ni ñooy internautes yi ak ñi ko seetaan ñenn ñi jàpp ne dafa am ay foli maanaam ñi jàpp dañ la dafa dof et dafa amee dépression waaye am na ñoo xamante nii abu dañoo wax ne lii du lenn lu dul mise en scène boo xamante ni bi nga xamante ni ci lay yëngu ci loolu rek la nan nga xalaat ci loolu waaw li ma xalaat ci loolu mooy comme comme ñi nga xamante ne mooy ci côté bi ñuy wax parce que ci côté métier bi muy yëngu parce que mën na dund lu nekk quoi mën na solu yër yëre ku wér di wax ci ku wér di mën na solu yëre ku wax ci ku wér na sa solu yaay fal wax ci yaay fal na solu leneen daal ciy wax mm-hmm. parce que ci côté boobu mais comme dem bay def ay live si génnee ay kàddu yoo xamante ne maanaam di si mel ne li di saaga et cetera noonu mm-hmm. day xaw a nag euh, sénégalais yi tamit mën nañu xam ne est-ce que kii Marème mañ xamoon la dama doomu adama nag noon la nit euh, maanaam wér ak wér di ñooy ànd yaa ngi comprendre bon joom wér di jo moom joomul wér di quoi mën na wér di du xel mu kii mën na ko dal mën na ko dal mën na ko dem bañ a bu fekkee daal lu ci mën a am ba mën a am daal li ma mën a wax nit ñi daal bu fekkee que ni dafa am problème mu xel yàlla na ko yàlla wéral yàlla na ko yàlla indiwaat ba mu bokkaat société bi bu fekkee tamit nag moom amul problème xel dafa bëgg-bëggam bopp lay def wala pour wut benn buzz wala waaw na na bàyyi loolu parce que toog ci internet bi di wax mhm. euh, pour loolu quoi waaye parce que euh, Mariam Dial euh, suñ fàttalikoo si benn interview bu mu mës a def mhm. mu ngi wax di yi nga xamante ni dund na ko tant mhm. def na ñaari yoon tentative de suicide moom Mariam Dial jéem na xaru ñaari yoon est-ce que aussi loolu nekk loo xamante ni nekk na traumatisme boo xamante ni daf koy topp ba léegi waaw surtout loolu mën na nekk te mën na nekk loo xamante ne da koy topp ba léegi lan moo waraloon mu maanaam mu war a xaru àdduna ni waru am leen loo métti ba jamono bi moom dara la nga nga

que tamit loolu expliqué na ko benn membre de sa famille moo ko def loolu noonu mooy et aussi euh, école bi nga xamante doon na fa jàngee aussi doon na fa dund ay maltraitance moom Marème jaar mën nañ jàpp ne xaleem yëpp daf ko mm, daf ko dund ci ay métit euh, ba ni muy màggee est-ce que loolu tamit nit mën naa dund yooyu noonu yëpp ba pare màgg nekk nit bu normal waaw loolu tamit day xaw na kéem bi man xam naa ne peut euh, loolu sama xam-xam soriwul tey nag mooy sa deuxième fois ma daal koy dégg daan naa ko dégg nag comme ci comme ci interview yi mu defoon ak yëpp yooyu mm-hmm. mais mosuma see bàyyi kii bu baax parce que dama dama est-ce que loolu am na ma des fois nit ñi. Mm. peut-être ñuy am ñuy am. lu mais moom moo ko waxal boppam waaw moo ko waxal boppam. kon déjà ko xëy na waaw loolu tamit mën na indi bopp problème bopp de. Mm-hmm. waaw loolu mën na dem ba indi nit ki yeneen affaire mais kon lu ci mën a am rek ñaan la gars yi ci société bi la Marème bokk. xam nga mm-hmm. nañ ko indiwaat quoi. waaw alors ak euh, possibilité bu ci mënti doon bu fekkee euh, li nit ñi di wax dëgg la nañ ko jàppale euh, ay famille aussi daal koy jege soutenir ko. Mm-hmm. su fekkee ci côté bad buzz bi la tamit mën naa arrêter parce que mu ngi day heurter sensibilité nit ñi parce que ñu bëri depuis euh, sa sortie ñu ngi génn ci réseau yi fu nekk di ko envoyé ay message di ko di di ko di ko mastaw di ànd ak moom mhm. alors warul jouer aussi ci ci li nga xamante ni mooy sentiment nit yi mhm. su fekkee ni ak ci métier bi muy euh, yëngu mhm. ak ni mu génnee woon ci série boobu noonu mu toog benn laps time kenn kenn déggatu ko fenn alors su fekkee lii euh, daf ko def pour pour li nga xamante ni daal di ñëwaat ci ci ci ci ci langue euh, artistes yi. su mm. fekkee loolu la moom mën na mën na arrêté. mën na arrêté parce que boo xoolee man moom moom ma man maa ko. Euh, fi ma ko commencé gis ci li nga xamante ne mooy ci côté euh, ci télévision. ci benn clip bu Canabasse Canabasse bokk na ci ñi nga xamante ne tey man ci damay jàpp ne sax Canabasse bokk na ci ñi xamante ne mooy. ñu ko njëkk a ko lancé affaire yooyu. ci yaa ko njëkkoon doon ko gis affaire yooyu et cetera mais mu nekk euh, femme boo xamante ne nii nice femme bu cool ah. boo xamante ne nii tey bu génnee góor bu ko gis et cetera non. kii dafa rafet et cetera parce que lu yàlla lu yàlla suñu borom di dénk jigéen rek dénk na ko yaa ngi comprendre mm-hmm. kon déjà li nga xamante ne nii passeem la ah jarul mu si sukkandiku ba mu jaral mu yàq àddunaam mhm. yaa ngi comprendre a laajte li nga xam ne mooy Sénégal est-ce que comme conscience tamit ku ñàkk tamit conscience tranquille dina am temps téye bay live di dugg ci yenn débat yi di wax expliqué xam nga est-ce que bay dugg yi di saaga ak affaire yooyu noonu mhm. parce que dëgg la xëy tamit nag ah loolu daal man xaw na sama xel xaw na jaxase sama xel daal. mbir mi doy na waar ah, waaw daal man doy na waar lool lool lool sama xel daal parce que tamit xanaa ana ay mbokkam waaw waruñu ko bàyyi mu nekk di live. Mm-hmm. quoi tey tey nit am na nooy débordé sax dina nangu sa image feeñ. Mm-hmm. ak ni moom ak ni mu ni mu génnee sax boo xoolee image yi bopp bi affaire yooyu xam nga. Mm-hmm. waaw comprendre ma daal xaw ma nag lu mu ciy wut na bu dee bës ci wut moom na arrêté moom. waaw bii moom waaw na pas sera pas quoi jàllul quoi. alors euh, mbokki internet Actubuzz tamit foofu la ñuy jaaree dakkal waxtaan bi euh, di leen jox rendez bu très prochainement ek ngeen des euh, ci chain bi ndaxte mbir mi dinañ leen ko toppal tamit ba xam fan la waan leen di mujjee ak ay bëgg. Ah, jërëjëf Faa xam naa ne yaay toppkatu kaa yi. waaw ñoom topp kaa toppal kon kaa yi yow ñu xool fu wane di mujjee ak bëccëg waaw di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam moom Marème yàlla na ko yàlla wéral. Mhm. waaw bu fekkee dafa am feebaru xel yàlla na ko yàlla wéral. bu dee amul feebaru xel dara dal ko na na bàyyi rewante gi muy def. waaw ba bu mu yàpp sénégalais quoi ok merci